asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw yàlla julli ci yonentam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye mën a nekk ñu leen siyaar ñu ñëw yéen seen naafile ku naafile guddeeg fukkeel ba ak ñett ku julli guddeeg fukkeel ba ak ñett ñaari rakka rakka bu ne faatiha benn yoon xul huwa laa ahad juróom benn yoon dana am yoolub julli junniy rakka ak yoolub ku woor ñaar fukki xat yàlla na ko jox njënd ci àjjana boo xam ne ni wursu marjaan ak wursu ab yadd juróom ñaari néeg néeg bu ne ànd xaalis bam ñaareel ba wurusu lay doon yooyu yëpp ay ngëneel la ci naafure tey gi ñu guddeel fukkee ba ak ñett yu am solo la